pareegum nañ suñuy alamtara pareegum nañ suñu xuraysh pareegum nañ suñuy tabat yadda jamono yi ñu ngi ci suñu xuduuhu fa xulluuhu la ñu toll jamono yi te day continuer te li nga xam ne moom la ñuy sante yàlla ci dog yi keroog dama ko wax sama page Facebook ci lay tëjee nañu def attention ma ñaan yàlla ne yàlla ma yàlla musal may bañ daara wala ma koy noonu wala ma jege ko bañ daara di ko noonu dafa am benn yàlla bu mag bu nekk Saalum bu ma woo bokk ci dog yi ne ma njabootam li ngeen di def ci group bi dana ko def danañ ko def waaye man mu tuddal ma dog boo xam ne spécial boo xam ne moom boobu moom moo koy defal boppam boo xam ne ñun bokk ak ñun la ñuy def moom moom xam la jëfandiku boppam la lu ko yàlla may ijaaba la moom loolu lay jëfandiku te kooku su ma tuddoon turam ñi ko xam duñ mos foog ne kooku mi ngi participer ci dog yi nga xam ne moom la ñuy def keroog ba ma déggee kooku ñu wax mu wax ma njabootam wax ma li muy def ci laa ne na ma yàlla musal ci ma bañ daara wala ma koy xeex te kooku mi ngi ci moog njabootam kooku rek doyoon na sëkk nga xam ne ku mel ne man ak ñeneen ak ñeneen sax mënoon nañoo noppalu ba tax na ñun doomu daara ay saytu daara duñ bàyyi daara muy suux ci réew mi incha allahu taala te am na lu tàmbalee feeñ wax naa ko démb ci guddi ne damaa sonn léegi sax ci naan waxoon naa ko waxoon naa ko waxoon naa ko mais ma fàttaliwaat ko dama leen waxoon ne leen. heure bu nu laalee daara catastrophe dana am ci réew mi am na lu tàmbalee feeñ nañu bañ a bàyyi daara yi am na lu tàmbalee feeñ nañu bañ a bàyyi daara yi te bu catastrophe di ñëw yéene wuñu catastrophe am Sénégal yéene wuñu benn fitna am fi ndax bu amee ñun duñu ci génn waaye nag bu ñu xamee loo xam ne mooy jur fitna safara si bu fekkee day lakke am ndaw lu jug utali safara si xamul da day lakke yow boo waxee ndaw li ne ko safara day lakke da ko bëgg pour bañ safara si lakk ndax safara si mën na koo lakk mu tuur furna ba xëy na mu tuuru foo xam ne day lakkaale ñépp daara mag ñi dañ ko ñage ñagu poson daara mag ñi dañ ko ñage ñagu poson ku ci laal da yàqu wax naa leen ne du ay waxu menace ki xuppa ki yàgg naa ko wax 2013 ba léegi heure bu ñu laale daara mën ne tiit na defe nag war na doy fi mu toll nii kon ñu xam ne nekkul dama am lu may wax nii comme wax mais dama am réalité bu ma xam ne heure bu ñu laalee dara am lu xew ci réew mi ba tax na mag ñi loolu nga xam ne moom lañ ñagoon seen ñag boobu ñu bàyyi fi ah ñag bi nag dañuy continuer rek di ko ñag ñagal ko ba ci sunuy sët ndax daara lim ñu ji mënuñ ko koo fay dañoo yëg am fierté ci sunu baay yi yóbbu woon ci daara ñu am fierté ci yóbbu fa sunuy doom am fierté suñuy sët dëgg dugg fa ndax gisuñu lu lu gën daara Sénégal te thème bi buñ ci duggee loolu moom mooy waat système éducation yëpp essuyé na daara doo nga fi des ma wax leen ko te bu ñu waxee daara mooy fi ñuy jàngee diina lislaam bu ñu waxee daara mooy fu nuy jàngee alquran fu bu waxee daara mooy fu nuy xamee nu ñu war a jaamoo yàlla julli woor fara koor aj màkk azaka et cetera et cetera daaraa koy jàngale. léegi nag boo na jógee ne daara yooyu noonu leen na fi jógee bëgg a installé école tubaab ndaw ñëpp ñu ne dañoo war a jàngi tubaab mais dañuy bañ ba tëdd ci ñag ba lu mu jar nag bu laajee tëdd kaso nañ fa tëdd ñun ñëpp ba jeex man ma dem tëdd ca kaso ba moo ma gënal ñu tëj daara yi moo ma ko gënal fuuf dee sax wuute ko tëdd kasoo gën a sedd dee wuute ko laa wax moo ma gënal ñu toog ñu ne dañuy tëj daara yi dee wuute ko moo ko gën suuf su ay daara daara nekkul yàlla bu ma dund ci suuf soosu noonu le ba tax na kon bu fekkee ñun ñi ngi ci combat wu ku ne am lu la métti ñu jooyal la ko te ñun bu amee lu nu métti ñun waa daara duñ ñu ko jooy la du tee ñun ñu jooy sunub dëj waaw te nag réew mi daara ku ne lebal na la boro boo xam ne bi ngay jooy sa mbir daara waa daara ñëw nañ jooy la ko jooyle la ko mais léegi ñu bari ci population bi nax nañ leen a naxa naxa nax ba buñ tuddee daara ñu ne sama yoon nekku ci ndax waaw daara yalwaan xale yi mbedd mi 24 heures terme yooyu lañ naxee ñu baree baree bare bari te loolu de ay telmu terme ñuy taxawaalu rek ay zéro virgule nangam pour cent ñooy nekk ci mbedd mi 24 heures loolu day daara dafa war a tax nga sukkandiku ci ba bàyyi ñu fekk daara yi ñuy mokkale alxuraan di jàng ñu koy supprimer ndànk-ndànk di jël xale yi di leen delloo ji pour lan ngir lan ba tax na ñun euh, mën nañoo jooy suñu dëj bu ñu kenn jooylewul tamit waa daara nañ jooy suñu dëj te fi may daane laate mooy complexe bi ci doomu daara yi na dëñ fa bari léegi ay doomu daara yu complexe ñàkk bopp yow naka nga mën a jógee ci daara jàngee fa yalwaan pare naan waaw man dama ko contour ci laa jaaroon waaye lii xew c'est pas normal dama ne complexe rek te loolu fi bari tey ñu bari bu fekkoon ne bor bi leen daara lebal lu mel ne Oustaz Iran Ndaw ma koy jaajëfalaat di ñaanal yàlla mu guddal fanam su fekkoon ne position bi muy jël ci daara li ko daara lebal la lebal moo moom yëpp ñi am teraanga di dund ci daara mais moom dong mooy jël teraanga ji ko jaar daara jox mu dellowaat ko daara ci ñi ma xam ñu nekk ci média yi di wax mais kenn ku nekk teraanga ji nga am nit ñi di la teral partout ci àdduna bi daaraa la ko jox daara jooju teral la ñu jël ko tëral ci suuf di ko bëgg a ne tekk rendi nga toog ne tekk ne bal sax yaay dimbale ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a rendi naan waaw man ànduma ci nii ñuy tëralee daara yi léegi ci li nga àndul mais noon bi ngay dimbale si laa ko tuddee man nag yàlla bu ma dal ku may bëgg na ma bëggaaleeg daara ku ma ciy bañ bañ ma man maa utul ku ma bëgg ku ma bañ sax man far ndax xam naa ban yoon laa doon jaar pour xëcc ay euh, ñu ma bëgg mais ku may bëgg na ma bëgg ci kaw lii ma bëgg bu fekkee am na ci am na ku may bëgg mooy nëbbatuwuma daara laa nekk moom laa àndal moom laa gëm moom lay dund te moom lay fas yéene défendre ba mooy dugub biir suuf mais ku am sa complexe nag daara defal lim la defal nga bëgg a wu ci côté tubaab ba nga wéetoo ko am nga ci droit mais complexe bi dafa war a doy mënuñoo nekk fii réew mi yëpp nekk ay doomu daara ku nekk daara la teral defal la li nga am tey ñu tëral daara ba ko rendi ñëpp noppi du sotti. waaw ba tax na loolu noonu le mooy li nga xam ne mënul woon ñàkk tamit ñu wax ko ngir situation yi fi mu toll. di ñaanal yàlla kilifa gu mag guñ dégg ne wax na ci wax na ci wax na ci danañ ci dikkaat incha allahu taala.